sunu papa Thierno Ka nga xam ne ginnaaw Alioune Sarr moom la mu toogal fi CNG papa maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. maa yaa ngi si jàmm. alhamdulilah sant yàlla bu euh, xaw dana am problème tuuti loolu lu indi dañuy joxe jël dem ba ñibba door consulté wu est jotul ñu jeen matuwaay. ku leen ne am problème. parce que làmb Lac de Guiers Boy Niang ne dafa arrêté li Lac de Guiers wax arbitre sifflé mu yaakaar da joxe jël mu ne da ngeen bëriwaat loolu lu lu mu. déedéet non arbitre bu fekkee arbitre bi dafa gis loo xam ne dafa safaanoog li juge yi euh, gis dañuy dañuy reprendre ne bi. waaw mais est-ce que jotul tam quatrième arbitre bi di toog ci direct ba di xool mu nekk genre VAR. VAR waaw mooy comme VAR quatrième arbitre bi toog ba. xam nga règlement buñ ko xasee ba de buñ ko ba bind fépp lay marché amul règlement Dakar ak règlement feneen est-ce que yaakaar nga ne VAR mën naa am fu ne. mu waaye mbër bëre ba pare daan. ba ñibbi ay quelques jours wala une semaine ñu ne ko yaa daan est-ce que ni mel dana ah non ñoom am nañu règlement euh, commission boo xam loolu mooy seen seen liggéey saytu euh, euh, genre problème yooyu bu fekkente ne mbër mi nee na daanuwul wala moom moo daan xam na fi muy jaar noonu la lak lak de guerre def ñeneen def ko itam donc y' a pas de problème. recours Gora Sock Tyson 2 fu mu toll. andi nañu andi nañu seen recours waa taille zone 2 andi nañu seen recours jox nañ ko commission bi ñoom leen di ñoom ñoo ñoom ñooy euh, réunion ba pare soo ko wax. jërëjëf Pène ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf.